tribunal ndax dafa gis na justice bi maanaam dafay par parlooy bi di Rewmi Quotidien nee na njiitul Pastef di Ousmane Sonko ni ki démb radical na la la la bi nee moom Ousmane Sonko daan nay dànkaafu ñi xam ne ñooy magistrat yi leen yéen magistrat yi ñi a a nax seen bopp maanaam ci nii wala ci na mbir mi du yombee noone moom Ousmane Sonko tamit ni ko démb daan nay dànkaa fukki nga xam ne mooy Macky Sall nee na ko Macky neexul ba neexul waaye jeexal nga demal naka demal Macky Sall jeexal nga defal ni comme yeneen président yi nga xam ne ba ñu pare dañoo dem daal di toog ci seenum réew tranquillement wala ñu dem def yeneen soxla bañ a am yenn jafe-jafe Ousmane Sonko ni ko démb nag doon na mel lu yedd Macky Sall nee ko gis nga ñi nga xam ne say jege ñaale lañu ñooñee bëgg ñu la maanaam dañ lay dugal ci musiba goo xam ne maara détaal yi te nag jamono ji war na ñoo moytu di dugal Sénégal ci musiba ma bëkkuma goo xam ne mën nañoo xam fan lay commencé waaye nag mën na bañ a xamee fan lay jeex yéen a kaay gi de libération Ousmane Sonko nee na duwu na li nga xam ne moom la gis maanaam de justice waaye banditisme judiciaire la yéen a kaay gi de le quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ni Ousmane Sonko ni ki démb wax na waaye nag résistance gi xam ne moom la Ousmane Sonko yàgg a wax ni ki démb na koy waxaat ndax nee na mbir mi moo toll foofu yéen a kaay gi de la turbine bugaan gi dañi daat nay wax ne Sénégal toll na foo xam ne maanaam kenn ku rafet na jekk na maanaam xeex ngu nguur gi nga xam ne moo fi nekk loolee war naa nekk responsabilité sénégalais bu nekk yéen kay gi de l'observateur ci xët mu njëkk mu ñu fekk fa Ousmane Sonko nee na je ne répondrai plus à la justice je n'ai jamais volé Sonko nee musta sàcc je n'ai jamais violé Ousmane Sonko nee na musta violé moom Ousmane Sonko nee na musta diffamé kenn maanaam musta yàq deru kenn kay gi la sëxëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ëllëgu tey jii la ñu ko joué ci kanamu cour d'appel journal bi du Sud Quotidien xëy di ko dëggal yéen kay gi du Source en tout cas li tey jii la ñuy àttee Ousmane Sonko waaye nag ab takk ndeeram moom kenn du ko gis ci diiwaanu Ndakaaru ndax Ousmane Sonko ma nga sa diiwaanu Ziguinchor te tey jii sa ji sax moom jiitul Pastef dafa woote ab réunion conseil municipal ci mairie bu Ziguinchor yéen kay gi nee na nga xam ne ñooy avocat yi Ousmane Sonko yi amul boo xam ne ñoom jot nañu ko yéen kay gi de Les Échos nee na àtte bi ba muy tuulee dañu koy dàq avocat yi Mame ñoom nag ànduñu benn yoon ngir nag ñu dàq li nga xam ne mooy àtte bi yéen kay gi di Walf Sall ma ngi woon ca diwaanu Londres waaye nag yuuxaloo nañ fa Macky Sall ndax Macky Sall jigéen ñoo xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ma la ñoo xaar Sall ba mu ñëw Londres naan ko Macky dictateur Macky dictateur Macky ma ne la gis nga coow li mel ne tulleeg male yéen a kaay gi di libération xëy xibaar naan ñu Cheikh Mbacké Gadiaga jamono ji ma ci garde vue ma la gis nga waa dig ñoo ko teg loxo ci lu jëm nag ci tuuma yoo xam ne tuumaal na ko ministre Abdou Karim Fofana journal bi di Le Quotidien yor yora xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy waa groupe Walfadjri ni ki démb doon nañu amal nag ak toogaanu ñaxtu ab sitina ngir nag ñu bàyyi Coro Mandela ak journaliste bi di Pam Ndiaye yéen kaay gi nee na sitin boobe nag Maimouna Bousso ma nga fa woon bu yeewi yëkkati na fa ay kaddu nee na nga xam ne moom la ñu dugal ci kasu bi di Coro Mandela dafa am bu ba toll si juróom-ñaari weer Macky Sall nag ji yekkal na maanaam Macky Sall dem na bay tëj ñoo xam ne juddoo guñu yéen kaay gi di réew ko di jenqëy ñu tey ji ñu àtte ci ay détenu yoo sept détenus yéenekaay gi de Libération xëy dañu xibaar naan ñu oustaz Assane Seck bu Sen TV teg nañu ko loxo yéenekaay gi nee waa sûreté urbaine nee ma commissariat central jamono ji fa la nekk garde à vue yéenekaay gi nee li ko waral dafa am benn vidéo boo xam ne mooy jàbbaa jonge ci internet bi oustaz Assane Seck di sa wax ne en ñaari mbir moo mën a am maanaam bokk ci élection yooyu maanaam dëkk bi tàkk ñaar kay moo mën a nag kaddu yooyu la Assane Seck daal wax loolee moo tax ñu daal koy teg loxo yéen kaay gi réew mi ko di ñu xëy fekk fa Farba Senghor daan nay wax ci lu jëm ci wàllum dialogue bi nee nag wuy ji ab dialogue maanaam tekkiwul na lépp loo xam ne Macky Sall bëgg na ko wala mu wax ko maanaam nga ànd seeg moom journal bi nee na docteur Abdourahmane moom nee na ci dialogue bi tey demul ci dialogue bi ëllëg ndax jàpp nee na bi maanaam ab di direct news ak xëy di ñu xibaar na ñu lu jëm ci programme xëy ndaw ñe Amadou Ba njiitu réew mi di président Macky moo ko sant mu def ci évaluation maanaam ab xayma journal bi di direct news nee na en tout cas li am ba de sall jamono ji gouvernement bu Sénégal ñoom ñoo ngi jubilé ci lu jëm ci wàllum xëy ndaw ñi ndax dañoo jàpp ne am nañu si ay résultats yoo xam ne yu kawi seen njort lañu ndax ñoom nee nañu lu toll ci 65000 emploi la ñu waxoon ne moom la ñuy créé waaye ëppal nañu ko yóbbu nañ ko ba 66243 102 pour cent journal bi nee na réussite totale yéene kaay gi na lu jëm ci wàllum financement leeral lu toll ci et un mille sept cent yoo xam ne financé nañu leen Amadou Ba daan wax ne yéen ñi nga xam ne yéenee ndaw ñe yéen a war nga xam ne mooy défi bi te danañu leen accompagner te Macky Sall pareegul ci yéen ndax programme bi quatre la diggante ak moom premier ministre bi ci journal bi di Direct News daan nay wax ne Promovilles la lu toll ci ci ndaw yoo xam ne recruté na ko bu dee AGETIP lu toll ci deux mille ci ndaw na ko ne président Sall réussir na ci lu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy wax ci mariage su surtout bi nga xam ne doon ko amal ci Sacré-Cœur mu doon may ab ay personnalité yu mag ñoo ko fekkee personnalité politique personnalité religieuse ay personnalité médiatique ay personnalité économique journal bi nee na premier ministre bi Amadou Ba ma nga foona Dame Diop ma nga foona Mohamed Boun Abdallah Dionne ma nga foona Hadjibou Soumaré ma nga foona Birane Ndour ma nga foona Mbaye Cissé ma nga foona journal bi nee na xumboon na te dagonoon na